assalamu member member drama France fan club Mang len di nuyu yen ñep di len gërem di len santa yen ñep di len ñaanal daama di ko saako di dégg ay audio nak ci bir kër bi Ma koy delete rek waaye dafa am ben audio bo xamne ne ma xala ñoo tuti rek Mané xara ma ñoo commencer. kii moo ko share mooy audio bi euh, balaa ma am beneen Ami Ceesay moo ko share 2207120533 audio bi mu share audio bu am fayda la te ku ko déglu ak xel di nga xam lan la boroom audio bi wax ku ko wax nag xaw ko waaye Ami Ceesay gis nga Gambia luy suñ problème mooy ñun dañ bugg a gan ku ñëw léegi ñun ku ñëw léegi moom lañ xam xamuñ ku yàgga xamuñ ku yàgga Momodou Sabally dégg la politique amul permanent friend waaye ñëpp NPP dañ war a bàyyi xel ne Lamin Sabally amul lu mu waxut amul lu mu waxut Adama Barrow président Adama Barrow ak familleem ak ñun ñi nga xam ne ak ñun ñi nga xam ne ñoo support Adama Barrow since 2016 ba saa si yàlla tey moom moo tuddee NPP Keren Kafo moom moo ko def Lamin Sabally mi dafa ñëw am faydaam dof doflu lu ci NPP ñu génnee Samsung bu des ci baatam bi ba mu toppatoo soxlaam ba pare mu rombañu fii mu dem yoonam wala mu mu ubbi beneen political party boppam di ngeen wax ne man waxoon naa leen lii. audio bi jël ko ngeen denc ko Lamine Sabali ku ko gis xam ne fu mu jógee dafa soona Lamine Sabali mu ngi làppa ba gën ñuul ba noppaam yi wow koŋ gannaaw boppam bi yëpp mu ngi wow koŋ ba ngee gis ci diti baatam bi su fekkoon ne tey ba mu fa dooree lu fa doon di am mu ngi ko am ba léegi Lamine Sabali du ñëw NPP Lamine Sabali koo wax ne koo bañ mu ne NPP waaye the fact that Euh, ñun Gambien yi xamuñ niti démba niti tey lañ xam tey ñun ñi nga xam ne dañ jógee diaspora ñëw ñun ñi nga xam ne ñoo toppa si ki nga xam ne mooy eh, naka la tuddaati Memba Dramé ñun yàgg nañ si NPP di sof di sofa de depuis Lamin Kan foromam bi ñun ñoo jël suñ own xaalis ñu defal suñ own si card léegi ñi nga xam ne ñoo nekkoon si groupe bi ñi nga xam ne mooy euh, Lamin Kan boobu noonu waa UDP ñuy saaga ndey di ñu saaga bàyyi di ñu saaga ñun si suñ bopp amul luñ ñu waxut ci àdduna bi dañ ñu saaga ba jël suñ groupe bi moomale ko seen boppa ñu ubbi suñ un groupe waaye gis nga NPP soo amul sa on plateforme ñu ne du supporter UDP du supporter NPP euh, UDP la sa tur bi su buggee dem si si si plateforme sax si soo amee sa own groupe wala nga topp ak ku am groupe ñu ne xee solo si solo saa ji mala dafa ñëw pour kii du UDP wala suñ gisee sa santa bi mu méngoo ak santi soose wala santi wala nga lii ni ñu ne xee UDP ko lem ñun NPP kenn gëñul ñoo soona si NPP amuñ plateforme de amuñ plateforme waaye NPP ñun dañ si def suñ alel di si wax suba ak ngoon guddee bëccëg ñu ñoo saaga si Memba Dramé fans club am bii mooy laas fii lañ em ñu toppa si Memba Dramé bu ñëwee ba léegi fii am na diaspora yu bari ñu ñëw Memba Dramé mu ngi def all means pour ñu gis président bi sax munuñ ko waaye tey Lamin Sabali comme jógee na UDP ñëw na ñëpp dinañ ko ebeti Lamin Sabali Lamin Sabali dafa dem eh, eh, eh, State House moto bu eex pel lañ ko jox zéro mile zéro mile wax neexu de waaye dañoo wax te dee nag te loolu du tax ñu en bàyyi NPP ñun dañoo tollu si diaspora bi fële ñuy yooni nit ñi ñu leen di jëndal ay aso bi di leen jox ay paas ñuy daw di dem bay seen kër yi ñu leen di yónnee xaalis ñuy dem di ñaawlu ñu put NPP waaye ñun loolu gisuñ loolu NPP gisuñ loolu NPP soo ñëwee diaspora nga kool leen sax ñu fa ne yow da soxla dara ñun soxluñ dara si NPP man dama ko dee yaagaa wax man soxluma dara si NPP lu ñu gënal mooy su ñëwee ñu tente ñu ñu gis ne ñu ni tamit di we are supporters of NPP ñu dem State House ñu gis président bi ñu jàmmalante ak moom loolu lañ am Adama Barrow dundalut ñu NPP dundalut ñu ñun luñ am si Gambia fii alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin xaw ma ñeneen ñi de waaye man ñu ma xam dañ samp seen i kër yi te amuñ benn amuñ ñaar amuñ ñetta ñu ngi am ay business amuñ benn amuñ ñaar amuñ ñetta ñun jooyuñ dara si NPP because dundaluñ ñu NPP dundaluñ ñu de waaye NPP xamuñ luñ xam mooy ku ñëw léegi xamuñ xamuñ ku yàgga xamuñ ku yàgga broda memba dafa nekk di daw NPP def yoonam bii nii amul lum dawut nit ñi amul luñ defut si NPP waaye tey broda memba bu ekkatee baatam sax mu ne diw ne suma diw ñëw na toppatoo leen ko wala dimbale leen ko ngeen defal ko lii boobu problème la boobu problème la ngeen jox doomi jàmbur bi gàcce ngeen jël doomi jàmbur bi gàcce lum leen wax doo leen ko ko defal ñun xamulen ñu Memba drame lañ xam waaye ñun tamit ñoo nekk si gannaaw Memba drame soo déggee ñu ne Memba drame te ñun la dégg nga waaye dafa toolu fele mu nekk bu mu ñëwee fii fi one month mu ngi si àll bi di si àll bi ñu ngi wax ak moom mu ngi si àll bi di dajale waa MPP yi amuñ dara luñ ko fay lu ñëwee dafa bëgg a nangu pati Adama Barrow loolu rek ngay dégg ah koo xam ne wax na leen ne moom bëggut a nekk président moom moo Adama Barrow ñoo bokka parce que ñoo bokka fu ñu jógee dafa ñëw pour jàppale ko sabali nu mu jógee di eh, eh, eh, ah, ah, mm, broda member jógeewut benn parti ñëw NPP moom dafa bokka NPP because of Adama président Adama Barrow waaye Momodou Sabally moom moo gën a mun a sewloo NPP tey te ba mu jógee UDP mu ñëw NPP dañ ko ekkati si kaw. tey su fekkoon ne Memba Dramé taxaw na Lamine Sabali taxaw dinañ ekkati Lamine Sabali ñu bàyyi Memba Dramé waaye kii audio bi lu mu wax nii man neex na ma trop dinaa ko séef ba dina ami jamono ku su kenn deewut te maa ngi ñaan yàlla ñun ñëpp bu kenn dee ñun ñëpp ñu fekkee Sabali bés bu mu amee lu mu bugg a lu mu fi am na ko jël because wax na ko si gémmiñam bi wax na ko de mu ne dafa ñëw NPP. pour dimbal Adama borom mu liggéey su ko joxee liggéey dina ko jël su ko joxee xaalis dina ko dugal si posam mu lekk ko te wax na dëgg ñun moom soxluñ xaalis kër Adama Barrow NPP ñun de ñoo pour ñu dugalante ak ñoom xam nga ñaata nit ñoo nekk si groupe bi Memba Dramé bii nii bugg a gis Adama Barrow mënut a fexe ba gis Adama baro ah ndax loolu dafa jaadu. Memba Dramé mi nga xam ne su demee ba bugg a wax ak ñi nga xam ne ñoo jegeñ pour dimbale ñi nga xam ne ñi nga xam ne dañ soona si pati bi bugg a jàkkaarloo ak Adama Barrow pour wax ak ñoom ñaanuñ xaalis mooy problème lu tax mu war a nekk problème te ñun ñëpp ñu nekk nekk ak doomi yan ñun toppa pati bi since 2016 ba léegi amul luñ si dajut waaye yan bi Gam MPP du ma saaga ñëpp sax duma wax ak ñëpp because man dama am respect du ma saaga. waaye lu maa wax moom NPP mooy ñi nga xam ne ñoom i tamit ñu si bari amuñ kóllëre amuñ kóllëre nekkul ne soo ubbiwut plateforme rek soonuloo si NPP ñi nga xam ne am nañu 85 eh, percent am na ñoo xam ne tey ñu ngi na si NPP di fas def seen xaalis di mobilize nit ñi di leen jox seen xaalis ñuy sol aso bi di leen sa jëloon ñuy ñaw di dem si si si si yii nii tey ah ñun. à cause de ñun la euh, diaspora ñaata nit la ñoo di leen jëndal ay aso bi mu mënuñ ko afford fii Adama euh, Sabally votalut Adama Barrow ñun ñoo jël even doo votaluñ Adama Barrow nekkuñ fii waaye ñaata ñaata nit lañ convince pour ñu dem ñu jox leen xaalis ñu dem pour ñu votal Adama Barrow waaye loolu doo leen ko gis Gambien bi ñoo hypocrite maa ko wax Gambien bi ñoo hypocrite dañ hypocrite ba mu ëpp doole ñu ne su taami wax jotee dangaa wax su taami wax jotu dangaa noppi liñ doomi adam doomi jàmbur bi ngeen di rusloo di ko tox gàcce mu ngi leen di won lan la bugga doo leen ko taxawu loolu moo war a bàyyi loolu moo war a bàyyi Memba Dramé lu mu def si parti NPP Sabally defu ko te du ko def de moom dafa am lu mu ut si su ko amee rek jeex na waaye ñoom fàtte nañ démba de waa MPP ñoom gisuñ démb fu mu nekk nii léegi lii nañ gis ñu ngi expect ñaata nit la saabali indi ñaata nit la saabali di génnee NPP am na ñoo xam ne dinañ génne NPP am na ñoo xam ne dinañ ñëw NPP loolu la life moo mel noonu kon boo leen gis nit ki mu jógee UDP because of UDP mooy seen ennemi rek ngeen siiñ ngeen ekkati ko si kaw fàtte ñi nga xam ne ñoo nekk seen gannaaw it's very wrong wal na ñu waxante dëgga man nag man man man moom dëgga bi fu mu nekk foofu laa ko tojee mu jeex takk du ma dee wax every li ngeen di wax yëpp maa ngi koo dégga maa ngi déglu audio yi waaye audio bii moo ma saf man moo tax ma duga ma tontu si audio bii nii Ami Ceesay mii audio bu mu fi def neex na ma torop te ku ko denca ëllëg si biir yéen ñëpp di ngeen toogaati ngeen fakkataluwaat si kaw ba borom mbaxana yi seen mbaxana yi daanu borom musóor yi seen musóor yi daanu ñaata jigéen ñoo fi nekk di soona si NPP fii Gambia bii nii suñ leen joxe dépasse sax ñu wàññi si ñu dem uti ñu ñu dem jëndi aso bi. mais léegi mënuñoo jàkkaarloo bëggoon nañoo gis Adama Barrow waaye mënuñ koo fexe waaye déedéet am na ñu bare fii ñu ngi si groupe bi fii ñoo xam ne tey buñ defee groupe ñu dem nuyu Adama Barrow ñëpp gis ko loolu rek lañ soxla si si loolu waaye Memba Dramé dafa wax a wax ngeen di ko sewloo di ko tuutiloo di ko rusloo ñu buñ ñëwee ba léegi ñu ngi toppa Memba Dramé ah ba kañ la loolu gerte bi duñ ko toj duñ ko saaf.